Diop euh, ñu ngi lay masaw bu baax a baax parce que xam nañu ni euh, fu mu toll ni nag euh, yow say nelaw das na yaa ngi ci plateau yi yaa ngi rëbës naan daanaka foofu lañ lay fekk souvent pour mën a teeru yi nga xam ne nag mooy biti nii di génn Diop mën naa wax sax sa mbokk jël man comme langage bi ngeen am ban information nga ñu mën a jox ginnaaw li nga xam ne nag fanaan nga fa démb Euh, barki démb tam fanaanoon nga fa ndax euh, li nga xam ne moom mooy euh, seen libération yi mu ngi dem ci kanam. waaw falaa falaa bëgg a dem nii sax manifestation mooy aar suñu élection tey suba lañ ma ko wax ne ma soo mënee ñëw bon comme que Fatma Mbengue mooy suñu jëwriñ moom mi ngi Rebeuss actuellement avec avec benn équipe bu organisé ma ne ko baal ma jaar fi def def place soutenir ñi parce que ñun li ñu bëgg mooy des élections libres et transparentes moom la détenu wax moom la Sénégal yëpp wax dans kon Macky Sall bon gëm naa ne. am na lenn lu ko dese su ma nee lu ko dese lu baax mooy la mooy la organiser élection yi avant le 2 avril parce que après le 2 avril il n'est plus légitime te li ma gëm moom mooy euh, Pastef les patriotes coalition Diomaye 2024 fi laa bokk ay jolachim li muy wax rek mooy ñun dañoo gëm ni Ousmane Sonko daf ñoo de surtout dara surtout ñun détenu politique yi taxaw nañu jàppal nañu soo xoolee xoolal président Sonko dane moom du génn fii ak doomi jàmbur yi génnuñu te li xawoon mars lay bañ mu xewaat parce que mars señ bi dafa ñëw ñaan ko ko sëñ Mountakha ñëw ñaan ko par le biais de ko sëñ man du ma ñaan daf may ma jëfee ko si ngeen xoolee lépp loo xam ne sëñ Mountakha bëggoon na Ousmane Sonko wàcc naa mu na ko mais la mu waxoon Macky Sall Macky Sall ni mu wax parce que dafa am ñoo xam ne ñu ngi ko seq dañoo dëgër bopp soo xoolee avec MDD dañoo sëñoon benn mémorandum daan nañ libérer les détenus politiques après bi ñu yemee Ousmane Sonko mais soo xoolee lan moo ci xew après dañoo xeex ba ñooñu génn cette fois ci Ousmane Sonko ne leen comme que yéen da ngeen ne woon man maa yéeg fitna ba ngeen jàpp ma jaay ma doole tëj ma dëkk bi tàkk ñu nañ ko génnee pour dëkk bi am jàmm bala génn doomi jàmbur yëpp ay génn si kaso suñ génnul du ma génn loolu ngor la loolu fula la mais loolu jom la mais loolu bëgg sa réew la te Ousmane sañoon kenn du dugg kaso man xam naa ko ci moom Ousmane sañoon nit bu dugg kaso parce que projet bi moog jomaay jomaay moom moom wax na ma lépp loo xam ne projet bi laaj na ko ñun doo ko war def parce que ñun ñoo woo ci lii mooy xeexal sa kon may wax Ousmane ñun détenu ni ñun détenu yi ñun détenu dafa tuñ deseltuñu dara parce que dafa jël benn détenu def ko candidat mënoon naa jël Birame Souleye wala wala Guy Marius mais Bassirou Diomaye la jël un détenu politique loolu nag daf ñoo rendre un vibrant hommage te damaa gëm ne après le 2 avril Bassirou Diomaye moo def passation ak Macky Sall loolu laa gëm auparavant le président Macky am na ñu euh, ci nañu libéré mais loolu mooy Ousmane Sonko am na dëgg ci moom Sénégal gi am nañ dëgg si moom ñun ñii am nañ dëgg moom parce que moom Macky Sall moo toog daal di woote benn dialogue mooy soo fooma dialogue laa bi wootee dialogue bi Ousmane Sonko du ma dem du ma ko xam dafa jël feddal takk Sonko lii même daa ne jàpp ma ay détenu politique ay délinquant jàpp ay agresseur laa jàpp ay def ko di ñaaw laa jàpp su demee ba à un moment donné xelam ñëwaat mu ne ah man nag ay détenu ko laa jàpp naa leen bàyyi ndax réew mi nekk si jàmm moom loolu la moom lañ kee laaj ñun nag jalaguñ am na sewuñ moom moo jàpp ay xale jaay leen doole ñu leen bàyyi nu leen bàyyi nag moo xam ne ñu leen bàyyi Ousmane Sonko dafa am dëgg ci Sénégal Ousmane Sonko dafa am dëgg ci Macky Sall parce que Ousmane daf ñoo waxoon nañu lii may def xeex bi may xeex ak dëgg Macky Sall mënu am ci man ndam. Diop dafa am benn benn nga xam ne nag moom mooy. Euh, soo baat dafa dee rek histoire bi nga doon raconté bëgg naa xam histoire bi mu mujjee. mooy xale bi nga xam ne nag moom dafa ñëwoon di jëndal ji yaayam dañ ko euh, mu jëndal yaay ji garab mu ñëw ba fi nga xam ne nag moom mooy hôpital ba dem wëri fu muy jëlee xaalis bu jëndal ko li nga xam mooy garab ñu teg ko loxo fan la mujjee ak parents nag fi ñu mujjee. waaw mais na cas yooyu na le cas de wax élection yi rendal ko arrangé wuñu rawatina ñun détenu politique yi Mor Seye dañ koo tëj mu ñàkk papaam ñàkk ñaari magam ñàkk rakkam Mor Seye dafa am éclipse daa am feebar boo xam day crise su ko daan la ñun ñoo ko jàppale mi ngi rëbës Mohamed Mbissane Mohamed Mbissane dafa xel dafa tàggoo xalam maa ngi lay dégg nga dafa tàggoo xalam keroog bi mu taxawee ak juge bi maître Tall wax na juge bi ne ko kii wérul keroog bi ma gisee tribunal dafa yuuxu moom Mohamed Mbissane dafa yuuxu devant la barre Diop tay fee Diop tay fee ba gars yi jàpp dugal ko ci kaaf bi keroog biñ koy atte fekkewu ko ñu may leen liberté provisoire procureur lànk loolu moo am soo xoolee booy boobu max max ngay wa booy yooyu moom quatorze sama fekk ba maa ngi quatorze maa leen dalal maa leen dalal ay histoire yi émouvante histoire yi extraordinaire booy yi nee naa leen lii dañ ci war a bind am lii wala ñu def ci documentaire gis nga histoire bu la gën a triste am na beneen histoire bu la gën a triste si cas booy yi cas par cas mën naa la wax ne la détenu bii MDM lii la mbokkam lii la yaayam nii la tudd papaam nii la tudd nii lañ ko def jaay ko doole te soo bëri ñu bés si bëri nervi yi ñoo leen damm jox leen policier yi ay alsan am na benn booy non Pape Abdoulaye Touré si mais Pape Abdoulaye Touré sax biñ ko dammee dóor ko torture ko def ko li ñu koy def avion spécial lañ ko yóbbu kooku sax mën ngaa comprendre mais ay alsan mais alsan mais alsan benn booy alsan dañ koo dóor mu xam police yi ko ne di ko dóor ba ximli ko ñu ngi ko rëbës mandat de rëbës am ay booy xam dañu leen dóor ba damm leen rëbës dañu ñëw rëbës ñooñu papier spécial la ñu dem ñu ngi indi rëbës <coughs> ay booy xam ne ni maire bi dañoo sàcc seen xaalis sàcc seen portable lan seen profil whatsapp wala seen profil portable def nañ ci Ousmane Sonko am ne xam ne bracelet lañ takk booy xam ne defuñ dara te naa bracelet électronique pour des longues détentions la nga jël bracelet électronique di ko takkal ay manifestants c'est li may wax gis nga ñaaw teef gi mhm. ñaaw teef gi xam ne régime Macky Sall def na ko ay doomi jàmbur foo ko natt si ñaaw teef rek barke borom Tuubaa romb mais nag li may wax mooy sénégalais yi sénégalais yi li may wax mooy on a affaire à des bandits a affaire à des wëyu ce régime là c'est régime sanguinaire li may wax nag mooy nañ nañ on a demandé des élections rapides libres et transparentes Macky Sall dafa a organiser élection avant le 2 avril nañ ci organiser seen tëggu yi la ñoo xam moom ma pousse ay bëgg-bëgg na organiser ay élection ñun masawuñ ñaanuñu dialogue wuñ encore une fois demande nañ amnistie soo baat moo dee damaa bëgg dem nii rëbës. ñu ngi lay jaajëfal bu baax parce que xam nga dama yor continuer liggéey mais di wax organisation Pastef. Mm-hmm. ñi génn képp ku am ay jafe-jafe soo woowee Fatma Mbengue wala nga woo am nañ ay médecins ay docteurs yoo xam ne pare nañ pour jàppale leen dina manière gratuite ñu xam dañ lay war a entrer si clinique yi loolu Pastef le les patriotes ñoom ñoo ko jël en charge leen li mooy paas yi ñu doon jox média bi jël ko ñun yàgg nañoo jox paas su tey ko def depuis 2021 non loolu dañ ci jaamu yàlla mm-hmm. Ousmane daf ne waxul am solo daf ñu wax ne lii nii jaamu leen ci yàlla su dee Sénégal yi gërëmul da ngeen ci am gërëmal yàlla kuy jaamu yàlla nag kuy julli nga fekk ko di ko sant kooku da nga koy da yàq wax la képp ku julli boppam la def kon ñu ngi sant gars yi mm-hmm. di gërëm di masaw les familles des détenus politiques mais lii xew démb ak barki démb wallaay vague de libération yi naqar nañ si am ak tiis parce que ñoom benn fan waruñ ko def kaso. loolu nañ ko wax. cote ñu leen doon cote massa yi ñu leen mas loolu lépp dañ leen namm rek dañ leen gis mais naqar ak tiis lañ si am. di jaajëfal Ousmane Sonko Ousmane Sonko gor la Ousmane Sonko jàmbaar la Ousmane Sonko dafa bëgg réew mi. intérêt général moo ko tax a jóg. ñun dinañu demandé ñu amnistie nous réclamons des élections libres et transparentes mais d'une manière rapide. jaa ngeen jëf di nuyu nag. di sant patriote seen taxawaay mooy patron da lay jox xaalis ne la soo neexee lekk soo nee nga taal ko yàlla ne loolu sama numéro wax dëgg yàlla demandé wu ma kenn ñaanal wu ma kenn dara mais ñoom ñoo am seen baax di ma envoyé seen xaalis seen xaalis nag dama leen du tay ko mës a def li yàgg nañ koo def mais fañ fañ leen koo laajee fa lañ koy dugal soxluñ ci un franc di sant